waaw di sant yàlla di mbégte bu rëy ndaxte euh, UNESCO dafa jël benn bés jagleel ko saraxolé euh, làkku saraxolé ne ko 25 septembre désormais ci adina bi yëpp saraxolé lañ ko jagleel mu di loo xamante ne euh, mbégte bu rëy te képp kuy soninke képp ku koy làkk képp ko dégg ba tax na sax même ñi ñu bokkal ci réew mi yeneen xeet yi nga xamante wolof yi pulaar yi euh, séeréer yi ñëw nañu bokk ak ñun ci journée bi di ko féete parce que bu ñu ko amoon it ñoom it dinañ ñëw bokk ko ak ñoom donc muy journée boo xamante ne dañ koy féetewu ndax wane sunu banneex wane sunu fierté àddina bi yëpp ba pare gërëm waa UNESCO nga xamante ne ñoo ñu euh, vraiment jagleel bés bi muy bés bu rëy boo xamante ne duñ ko gaaw fàtte te di mu loo xamante ne at bu noom saa su ñëwee rek ni lay représenté ministre de la jeunesse des sports et de la culture ak secrétaire d'État à la culture aux industries créatives et au patrimoine historique madame le ministre mo fi wara téw dem na sor am célébration euh, du naufrage du bateau de Diola le tax ñu Nous avons ñu ma fille, parce que journée bi dafa am importance bu mag ci ñoom dafa bok ci lu ñuy wax patrimoine parce que langue sonique... est est carrément Le patrimoine mondial de l'UNESCO faut le reconnaître donc loup il faut que nous valorisions. quoi qui nous le ñu de représenter autorité mais li ma wax le mot reconnaissance par l'UNESCO de la langue sonique. le lu le le la lu Afrique langue swahili am euh, reconnaissance deuxième langue moy soninké kon lolu du affaire caaxaan djola bi olof bi alpulaar bi amuñu reconnaissance boobu parce que ñi dañ ko liggéey dañ ko liggéey deug deug deug deug lolu tañu am reconnaissance boobu léegi ñu ngi inviter yenen ethnie yi mais lu ma ragal mooy soninké lu mu am comme représentativité ci pays yu bari djola bi amuko la peut-être Gambie ak Guinée-Bissau olof bi amuko donc euh, lola ragal pour euh, ñu am difficulté am reconnaissance bu euh, soninké yi am parce que ñun légui kenn nangatul làkk doomam yi ñun joolaay léegi ñu bari dañu préférer làkk olof wala français suñu dom. Té loolu boko défé sa langue day disparaître ça c'est sûr telle langue moo culture bi parce que loolu mooy danger langue bi disparaîtrait disparaître day yóbbaale culture loolu ta il faut que ñu def ci attention bu baax a baax a man loolu damalé euh, na yi dama leen torop torop torop il faut que nous servir d'exemple pour yenen euh, euh, langue yu nekk ci Sénégal vraiment man loolu mooy sama appel parce que langue comme ni ma ko waxee sànq dafa bokk ci patrimoine bi te patrimoine ministère de la culture moo ko